mbooloo mi sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nee na tey xol yi dañoo fees xol nag bu feesee wax day dal di gàkk ndax la nga waroon wax dootoo ko mën a wax ngir xol bu fees loolu moo ko dal ci bés bi tey nee na tey kàddu gi ma waroon yëkkati jibal ko ci doom yi ak taalibe yi ak ñi teew fi munuma ko wax ndax li ma dal mooy kontante boo xam ni fees na sama xol tey waaye lu sama xol fees fees duma mën a ñàkk nag jël kàddu gi sant ci ñi ma ci war a sant digal leen ñaanal leen nee maa ngi sant yàlla di julli ci sang bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sëtu sayiduna muhammad bii Cherif Ibrahima Haydara nee na Cherif Ibrahima même budul woon cofeel gis dox sama digganteeg moom muy dogit ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñu nekk deretu Mawlana Cheikh El Hadj Omarul Fuutiyu xam nañu Cheikh El Hadj Omar cofeelam ci Sayyiduna Muhammad nee na waxuma sharif de waxuma shurafaaw yi deret yonent bi waxuma ñooñu kenn du leen boole ci wax ñoom dañ leen féetale côté waaye bépp waliyu bu yàlla ko bind nga teg ci sa tànk ci kaw suuf ni Mawlaana Cheikh Al Hadj Omar bëggee seen Sayyiduna Muhammad ah jafe na ku mel ne moom amul boo dawee doo ko dab boo séenee doo ko séen ci bëgg Sayyiduna Muhammad mais. Cherif Ibrahima mi sax moom de waaye waaye doonul woon sama xarit sax bu ma ko fekkee ci jotaay mu mel ni mu mel waruma jëkk sant kenn gërëm kenn ku dul ma jiital ko ci cant gi ak ngërëm bi moom ak ahlu bayt rasul yi nga xam ni ñoom la àndal ci xadara bi yéen yéenay cosaanu àddina ay cosaanu laaxara xara budul woon seen maam sayiduna muhammad dara du sotti dara du jeex mais aadama mi ngeen wax ak ay mbiram ak ay jagleem li ko yàlla defal bu woon sayiduna muhammad du am li mu am nee na malaaka yi ba leen yàlla waxee lañ ko tontu ak sujud yi ñu waxoon ñu sujud lépp bu dul woon sayiduna muhammad lii yëpp du am kon nag seen maam bu teewee seen sët bu teewee ci ba xadara yelloo na rafet na baax na ñu jóg leen teggi am xoroma ndax ñun amuñu lu dul sayiduna muhammad ak njabootam waxatuma nag na moom Cherif ay Haydara dafa simmi mbubbu Cherif bi mu jël jox ko jagleel ko waa kër Cheikh El Hadj mais li mu defal papataal moom rek moo ko def man Thierno Mahamadul Bachir li ma defal moom rek moo ma ko defal kon nag ñaari boor yi yëpp. war naa ko sant war naa ko gërëm waaye nag waaye bàyyee na la sa sant bi nga xam ni moom nga gàlloo muy Haydara di sët Sayyidina Muhammad yàlla mi am pay yàlla la yàlla fay bu loolu paase nee na maa ngi sant Cerno muntaka Papatal bu ma santee Cerno Papatal nee na ngeen xam ni njabootu Cheikh Alhaaji Omar yépp ba wërngal këpp dugg nañ ci biir cant bi ndax sët yi tey moom Thierno na Papa Tall mii la yàlla jiital tey moo mag ci sëtu Cheikh El Hadj te li mu nekkee mag yëpp itam bu fekkoon ni magu ci wàllu at la rek kon danuy wax ni moo mag tey ci wàllu njabootu Cheikh El Hadj Omar ci wàllu at waaye xam-xam ak chariatul muhammadiya ak ragal yàlla ak tasawuf ak tee làmmiñam nag tëj ko rab kenn du dëkk loolu kenn la ci njabootu Cheikh Alhaaji Omar gaagaa sët bi xam-xam bi sawufu bi taqwa bi waaye téye làmmiñ bi kenn la ci loolu yombul ci njabootu Cheikh Alhaaji Omar tey nee du bu ngir li mu toog de ma koy pomp walla di ko jàjj waxuma tey moo raw ñépp de gën a xam ñépp waaye tey képp kuy setu Cheikh El Hadj Omar boo waxtaanee ak moom bu la daanul doo ko daan loolu nag mooy loolu loolu mooy kañ yarfau llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat loolu yàlla wax lii yàllaa ko def shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa yàlla jeexal na fii fii ne tur bi nga xam ne nit ñi ñu koy wër nag di ko seet bi nga xam ni moom la yàlla sakke sayiduna muhammad nee ci shahaada bii nee foofu la feeñee il laa ilaha illa huwa jeex na laa ilaha illa huwa wa ulul ilmi qaiman bil qist déglu leen foofu bu baax mu delluwaat mu ni laa ilaha illa huwa laa ilaha illa huwa al azizul hakim lu des dara nee na nguuru sunu borom jeex na ndexe xam-xam mooy lépp bu amul doom ju ku baax bu amul xam-xam amul ragal yàlla amul yar amul tasawuf ne xam-xam la de ka masalil ximéeri yaxmilu asfaran ne téere mbaam daal mu ñu sëf ay téere yu mu diis mbaam mi xamul lan lañ ko sëf lu mu doon ñu nag du ñu seede lenn lu dul lu ñu xam ak lu ñu gis Ceerno Muntaga mii nag xam nañ ni ah ku góor-góor la ci kër maamam Cheikh Al Hadj Omarul Fouti mais xam-xamam moom loolu moom kenn natable wu ko ci ci loolu kenn natable wuñ ko jàpp nañ ko xam nañ ko te dañ nañ ko itaraaf ci sunu gis ak sunu xol yépp xam-xam bi ko yàlla def reconnaître nañ ko loolu moom français la ñu dégg français xam nañu lan mooy reconnaître reconnaître nañ ñu moom amul na table kon nag sant ñeel na sunu borom tabaraka wa taala maa ngi koy ñaanal waaye li ma gën neex waxoon naa ko Cheikh Oumar Ba jërbaatam bi ma gis naa ziyaara Ceerno Papatal bi gisuma ci xale yi loolu dama la koy wax neexuma gannaaw loolu nag ma delluwaat ne ma daldi nag jàjj pàppataan xalab ko ma ni ko nag cheikh yow demal bépp njaboot boo xam ni nekk na fii ci réew mi tey na nga defar carte yow Cheikh nga jox njaboot gi kenn ku ne nga yóbbul ko kartam ah Cheikh Umar def na loolu waxtaan na ceeg papataan wax na li la sa bàyyi li nga xam ni moom la la xalabe waaye xalab luwul de ne moom tasawuf suuf yënk bi moo ëpp ci moom yëgalul boppam dara ne ki ma xalab kay ah sama bopp nag lee sama bopp nag laa jipp xalam ak sama doom yi ma jur surtout nag njabootu muntaqa taaha yépp bañ daj amul kii amul kii amul ah njabootu muntaqa yàlla bind lu leen ku gën ku gën papataal ci àddina amuñu ko te ñoom itam kenn ku ne ci ñoom am na lu la yàlla def am nga reer am nga mbooloo am nga sa daraja am nga sa xam-xam doo njabootu Muntaga Daha ak ay sëtam alhamdulillahi kenn ku ne am na lu la yàlla defal bu ngeen yàlla jaglelee nag ba ku mel na Thierno Muntaga mi waaye bësam ñëw nag bësëm jot ci at bi benn yoon mu mel ni ko yàlla melal bu ngeen taxawul ah yéen lay xalam yéen njaboot gi ba ma dem nag bu ma jógee fii rek ñu lem sees bi nag ma dugg ci oto bi départ nag ñu dal di jóg waxuma kenn nag tudduma sàmba tudduma maa demba damaa wax rek dama ni na ngeen taxaw te yàlla rek a tax ngeen taxawu Ceerno Muntaga ngeen taxawal ko taxaw leen ko taxawal ko bésam bii la ko yàlla jagleel ci biir weeru koor muy benn yoon ci at mi ngeen taxaw bés bi jëmmal ko bu leen def seen alal sax mais def seen alal lamb seen poos daj fa dara sax génnee def war na leen war na leen de ndax ku magal magam yàlla magal la axul kabiru kal walid mag bu mag daal taxuwaay way jur lay taxaw ki mag daal ki cibti bu waaye waaye bu bis ba jotatee Ceerno nee na bu leen sax dam waaye na ngeen sol seen mbubb yu rafet dajale seen njaboot taal seen oto yéen ñëpp ngeen màbb ñu ni lu xew papataal moo xew ngeen siggil papataal ci biir ay nawleen neen lii rek laa bëgg ci yéen bu jotee ngeen alerte njaboot gi fu waay mën dajale njaboot gi taal seen oto seen sol rafet ku ne dugal sa njaboot ñu xew ñu ni tey papataal moo xew leen comme nag gannaaw nee na nag Thierno nee na comme tey ñëw nañu ah yéen a ko wax de gis naa fi ñu bari de ah nee na man daal ba ma ñëwee dama sëgg rek gi xooluma kenn waaye yéen a wax ni njaboot gi ñëw nañ ah sant naa yàlla sama borom delloo naa ko njukkal waaye sant laa ñu ñun njaboot gi te maa ngi santaat yàlla li ma bëggoon loolu la ma yàlla defal dama koy sant Thierno Mountaga nag. baayam Cheikh Umar Muntaga Daha sunu diggante Tijaan nooto hmm. bisu àjjuma ne ci bi àjjuma bi passé diggante àddina yëpp laay doon nettali sama diggante ak Cheikh Umar Muntaga Daha ne xaw ma de ah lu ma ñu xam ak lu ma xamul daal xam naa ni Cheikh Umar Muntaga Daha moom bëgg na ma man ca dem te itam ñaanam tabbi na ci man jëriñ na ma de dëgg nag nee na yaay liggéeyam ah njëriñ la ci doom yaay liggéeyam liggéey ndey añub doom waaye nag fokk am fi yàlla jaarale sabab bi ba liggéey ndey bi mën a feeñ ne maa ngi sant yàlla nag di santaat yàlla di sant sama mag Cheikh Umar Muntaga Daha mun Cheikh Umar Muntaga Daha man Thierno Mahamadul Bachir munuma ko fay ci àddina munuma ko fay de kon nag bu yàlla defee àdduna di dox jamono di dox ba lii xew papataal xewle tey mooy sama Cheikh Alhaji Omar mënuma fay Cheikh Omar Mountaga Daha sama mag waaye bëgg naa teral taawam bëgg naa teral bëgg naa ku teral papatal loolu laa bëgg ci njaboot bi ngeen bàyyi xel nag te ràññee te xam loolu li rek laa soxla ci yéen yal nañu yàlla taxaw taxaw leen yal na leen yàlla defal barke dégg naa ñoom ñépp teew nañu ñépp ngi di am na ku toog fale sax mun dangaa sëy di makk ñëg si ne léegi ah dama leen di wax nag barke nag ah dañ koy jënd de barke soodete hoccitaake jinde barke soodete dow laawol jinde hay goto hoccita barke barke da koy liggéey nga jënd ko nga am ko kon nag cer Thierno nee na li ma leen di ñaaxaat nay na ngeen gën a góor góorluwaat ngeen bàyyi xel ki leen yàlla booleel muy seen mag muy Cerno Muntaxa bésam bii bu jotatee dama leen ñaan man mii seen bàyyi dama leen ñaan ngir yàlla yéen ñëpp fu ngeen mën a ne ak nu mu leen fekkee nangeen ñëw ci bës bi jëpp lee li gën a rafet ci yéen képp kenn ku ne ci yéen na indi ay kaar jeex na ndigal jib na nee na li gën a rafet loolu moo gën a rafet ci njaboot gi kenn ku ne la nga am ak fa nga ko amee na nga luy ay kaar def say nit indi sotti fi bu loolu a asan ah, jëmm moom na teew ku ah ku amul gëléem kay xanaa na nga indi béy bi rek boo amul gëléem sikket moom yomb na boo mënul luye ay kaar njaga njaay ak dem dikk sa jëmm moom na ñëw nee na nag bu ngeen gisee ma wax leen lii ah yéen a ko wax de bu ngeen indiwul woon wax yéen a ko sooxe damay noppi rek seet di leen seetlu nag xam naa ni daal ñaa sama ñaan bi ma ñaanal Cerno Muntaga baayam ñaanal na ma manit kenn ci yéen amul Cerno Cheikh Umar jetta dem ngal mum mu ni mu ni mu ni mu am sama lammiñ mu ngi nii nampa ko kenn te du koy def am na ay seede Ceerno Yaaya Ba mu ngi ni dund fekke na ko ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Umar Muntaga daa génnee lammiñam ni Bachir miñam muy nu dem nga lam ma nam li ah affaire bi mu ngo ah, lii de loolu de amuk yéen njaboot ñii Cheikh Omar jur jaboote leen defagu leen pexe de ba ma mën leen jox sama lammiñ bi ma fay leen li li li li ma sàmm ak dafa la ah du ko def nag maa lank xam nga lu tax baayam Muntaqa Taha nee na soxna Aminata Sow waaye juram bu jigéen sa doom ne ay dàllam du ko du ko téyel boppam de baayam Muntaqa Taaha moo wax soxna Aminata Sow muy jur Thierno Mahamadul Bachir mi toog mu ne soxna Aminta sa doom ay dàllam de du ko téyel boppam keneen de moo koy téye ak bari ñu téye dàll tey nee na loolu Cheikh Umar Muntaqa Taha papay Ceerno Muntaqa Papataal mii moo ma nettali loolu loolu dafa am lu souligné woon wax ji dafa am lu ko indi woon yéen xale yi bu ngeen jegewul mag ñi tarbiyu ñu leen di nettali du ngeen xam lu xew ne dañu jóge woon ca kër ga ñu ngi jëm ca ndey sura ma jël sama dàll man Thierno Bachir ma def ko ci sama loxo ba ñu ñëwee ba ci bunt ba ma jël dàllu Cheikh Omar Muntaga Daha ma téye ko boole ko sama dàll ak sama dàll ñu dugg ba ci biir ba pare ma bokk dàll yi rek mu dem ca ndey suraan ñu waxtaan li ñu doon waxtaan ba ñu pare man maa ngi toog fale ca gannaaw nit ñi bañ ko ceerno sama mag Cheikh Omar Mountaga Daha mu ne ko jërëjëf am naa fi xam-xam waaye ci biir xam-xam bi am naa ci itam ñaan nee sa xol bu neex bi tey sa xol bu sedd bi tey ba nga ñaanal ma doy na ma say dàll fépp fu ma fekkee dootuma bàyyi keneen di ko yore man rek maa koy jël téye ko loolu moo indi wax indi wax ko xaala addata xaala nee na xale yi xamu leen seen way jur Cheikh Omar Muntaga Taha radiallahu taala anhu dañuy wax ni moom du borom xam-xam jàngul <laughs> waaye nag na Yaaya am na wax na benn kàddu waaw fekke naa ko Ceerno Yaaya mu ndax ndax moom bu waxee moom nee na doyul ci Cheikh Umar Muntaga Daha ñu ne mën nañ koo gisee nu bu waxee waaye Ceerno Yaaya moo wax maa ngi toog Cheikh Mouhamadul Bachir mu ni toog ak àddina bi war ñu mu ni Cheikh Umar Muntaga Daha Cheikh Umar Muntaga Daha bu meree mu ngi jàkkaarloog al arsh ak kursi o wi Cheikh Umar Muntaga Daha so fitni omo huccete al arsh e kursi o futtini gite ɗe o wiini kursi yu e arshi omo hucciti hen lépp lu mu fa ñaan yàlla da koy def ci saasi li Thierno Yaaya moo ko wax wax na ko du benn du ñaar loolu nag loolu yaakaar naa loolu loolu moom loolu moom suma sëriñ la suma mag la suma lépp la mënuma ko wax waaye loolu moom yaakaar naa raw na xam-xam jàkkaarloog al arsh ak kursi yi loolu moom raw na xam-xam ngam da di papataal xam nga loolu dara ump la ci bamma hay hunde ala ko humpuma e makko ala ko majjuɗa hen ala ko humpuma hmm, ne dëgg la nag ceerno seydou nour cheikh oumar ñaanal na ma man ceerno bachir ceerno ahmad oumar hoore ñiiwa ñaanal na ma man ceerno bachir dëgg dëgg nag ceerno muntaga amadou Cheikh baa mii la yónni woon Cheikh Ba ko wiino dafa wax Cheikh Ba boo demee nga wax basiiru sama rakk maa ko gàddu fii haa ilaa yawmi ddiin ndax seddal na sama xol Muntaga Ceerno Muntaga Amadu Muntaga Cheikh Omar burki démb rek yàggul yàggul dara burki démb rek kon nag lu ne di am ku nee na nag ku dund ci àddina nag ba yàlla may la loolu te xam nga ni ñoo mag ñooñu yàlla may na leen bu fekkee ne naroon na yàqu sax fekk ñu ngi dund mu yàqu waa yàlla def na sutura dara yàquwul ci seen kanam ba ba ñuy dund ba ni ñu demee dara yàquwul bu amee rëq-rëq tam yàlla defar na ko balaa ñu dem ñu teg ci seen bët ma ngoog ñun ñëpp ñoo ko déggandoo enen fof nanti ɗum o muni moom cheikh omar muni moom ceerno mundaga muni basiru samarak lépp lu ma am ëllëg bokkul ak yow yàlla na ma ko yàlla kay la mën a yiddi kay doo haaji kala ko dañ mi to allah janga somi rendaane ma yo allah haɗam ɗum ɗo kay ɗo yidde haaji ɗo yiɗande haaji nuru cheikh oumar muntaga ɗa ha ka bamma wi ka seede seede nga a ah, muno ko weddi de nena nuru nena fekkenako ne amago koci mom de Cheikh Umar ni ko nuuru demal indil ma sama karne diw mu boo defee nit garanti da koy jox loo xam ne ni mu nekkal ko garanti sa waɗi neɗɗo garanti a rokkat ɗum ko ngannduɗaa ko ina waɗa ɗum garanti o wi nuuru yaaddoye carnet o nuuru demal jeli karne bi Naziru fekke na ko Naziru mu ni muy xool keroog mer Ceerno Cheikh Umar Mountaga Daha mu mer mu fàtte sax sëtu Naziru sëtu Cheikh Umar la mu ne ko lii du nii lañ koy jotee ah daayira Louga a ci jiital Amadou Kassé nee na bannee xam. di diggante xolam ni mu seddee ci Thierno Bachir loolu la doon wax mu génnee lii Thierno nag lila la yàlla mën loo yow rek yaa ko mën yow rek la ko yàlla jagleel jagle la jagle la ne maa santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax ne tey daal bisub kontaan te la te man Thierno Mouhamadou Bachir kontaan na ñaanal naa leen ni ngeen teralee papataal warmaal ko màggal ko jëmmal ko jëmmal bés bi yàlla na ni sama borom xam na ni tey kontaan naa sama xol dal na te te nee ñaanal naa leen de amin maa ngi leen di ñaan nag leen na ne ku nag nee na commencé yomb na jafewul de sadi ne motal li nga commencé woon moo jafe fuɗɗaade noon saɗaani wiide goo saɗaani saɗi ko wiide sappo ɗum noon wax benn yombana waaye la cay tegu mat fukk moo gën jafe koonu junju la junju doy na borom xel kala jom haqqille faami ko jiyan allah yiɗi haalde ko yo allah hokku en ñande fof ina ɓeydo omo yiya ina ɓeydo omo yiya haa hokka en o yiira yitere makko o wi ko ni jiɗirnomi allah waɗani kam noon mi yetti allah allah ne wawi ne jogui yo allah waɗan en waɗanamo ko haddi han jonde nde ari ha ɗo han heddi ceerno han kadi rek moo des cheikh oumar ba ko kalda ceerno muntaga a nani ko bamma haali ko kala ɓiɗɗo ina yiɗi bammum jooɗonde e jonde haala ɗum ko ɗo haala golle ma e anndiyema kala ɓiɗɗo jibinaaɗo ko ceerno mahamdoul bachir jooni ko haali ko gooto fof sinno kono saga mum allah yo allah hokku ɗum gollude kono haalane ɗum ɗo yo allah hokkumo fandinde ɓe dañani ɓen yo allah yet ɗumen hokka ɓe fandinde ha o duwano ɗumen heddi ko duwanɗa julɓe ɓernde ma koko ɓuuɓi ko ɓernde ma ɓuuɓi ko fof ɓernde bamma ɓuuri ɓuuɓde duwanɗa ɓesgu ngu yo allah hokkuɓe duwanaɗa kanko duwanaɗamo yo allah hokkumo cellal e balɗe juutde e ɓooyde gollande cheikh yo allah hokkumo cellal hokkamo balɗe juutɗe hokkamo haqqille e baawal e hakkana mo omo gollirana cheikh oumar fof omo waɗa ko yimɓe cikko meeɗa wadde hono ɗum ɗo allah ne wawi ɗum woto seytani naata en woto seytani dañi hen gueɗal en boniri woto en bonniri yo allah moftu en moftana en golle men ɗe ɗo seyɗani heɓata allah ne wawi ɗum no jogui ɗum saabu himme makko e barke makko e duwawu makko ɗum noon duwaneɗa julɓe ɓe ɓerde ma ɓuuɓi a weltimo so mawɗo woyi wonko woyini ɗum mere wonta mawɗo noon duwo yo allah humtu haajuji ɗi pop yalno yo faj aajoyi mbiya amin wahlen amin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 ba balaa nit ñi di ko xatal ba mu yegg ci otoom